baax a baax a baax a baax la sortie euh, président Bassirou Diomaye Faye mm-hmm. le fait que mu dem toog ak euh, le président malien ak euh, burkinabé wax leen que ne li ngeen nekk baaxul dama bëgg ngeen li mu bu ma sañoon ngeen dellu siwaat CEDEAO bon loolu mooy sa posture mais bon ñeneen ñi aussi tamit gis naa dégg gis dégg naa ay panafricains yu bëri yoo xamante ne nii fis xaw nañoo fustigé mais bon ak nu ci munti demee ku ci nekk ak xalaat bi nga xam ne moom ngay am mais euh, le Sénégal ci CEDEAO ak ay dëkk yu mu bokkaloon CEDEAO nekk ay dëkk yoo xamante ne nii lu mel ni Mali dëkk bu ko jege lool lool lool ñuy génn nekk ci beneen euh, communauté dafay nekk loo xamante ne nii euh, lu lu nekkul loo xamante ne nii lu xëy na peut-être rataxal diggante yi la ci li nga xam ne mooy Sénégal ak Mali par exemple exemple laay jël entre Sénégal ak Mali parce que Mali moo gën a jege te moom moo génn. donc lii war ki nga xam ne mooy le président mooy euh, jéem a gën a waxtaan naat ak ñi nga xam ne ñoom ñoo génn waaye itam waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom ñoo fi ne parce que ñi fi ne am na ci ñoo xamante ne ni euh, gis nañu euh, bi bokk nañ ci li tax sax mun nañoo wax ne am na loo xamante ne ni ñenn ñi nga xam ne ñoom ñoo génn xoolee nañ leen ko ba génn ci li nga xam ne mooy CEDEAO mm-hmm. parce que ñi ci ëpp li ñuy naan li ñuy wax li ci ëpp mooy c'est euh, benn communauté la boo xamante ne nii ay président euh, gouverneur de France ñoo ko ñoo fa nekk xam nga ils sont sous les ordres bon loolu mooy appréciation yenn ñi di di di di am mais tey jii c'est le euh, c'est c'est c'est c'est c'est l'occasion pour le Sénégal de d'imposer li nga xam ne nii mooy gëddëm ci wàllum relation internationale wax nañ ne ci Afrique de l'Ouest Sénégal bokk na ci dëkk yi gën a stable stabilité boobu aussi tamit nag il faut mu nekk loo xamante ni daf koy traduire ci ay actes yoo xamante ni day permettre à que dëkk yi nga xam ne ñoom ñoo nekk en bis bi ci benn communauté bu ñu bokk ñu mën leen a euh, waxtaan ak ñoom ba ñu dellu siwaat loolu mooy rôle bi nga xam ne ni moom la euh, euh, Sénégal am mm-hmm. et bu ñu waxee Sénégal mooy le président Bassirou Diomaye Faye donc c'est très normal mm-hmm. mu dem mu waxtaan nag ñi nga xam ne ñoo nekk ci AES pour que ñu mën a dellu si waat mm-hmm. parce que waxoon naa ko la fois dernière gis nga euh, j'avais rappelé que ne États-Unis 52 état ñoo fa nekk Union européenne c'est des états yoo xam te dañoo booloo dëgër nekk benn état ak yeneen dëkk aussi tamit yoo xamante ne ni ñi ngi jéem a xool lu ñuy booloo xoolal ba ci politique ba ci politique xol ban parti mooy dem moom kese gagné élection amut. il faut des grands ensembles. Mm-hmm. te booloo mooy doole loolu suñ borom wax na ko. Mm-hmm. donc ba ci monde arab bi sax ah, mm-hmm. boo gisee par exemple tey jii les pays musulmans nekk ay pays yoo xam ne dañoo néew doole te c'est parce que dañoo boolewul moo tax. ku ci nekk day jéem a xëcc booram ku ci nekk day xëcc jéem a def li nga xam ne ni moom moom moom moom loolu la bëgg avec aussi tamit l' influence extérieure bi nga xam ne ni day ñëw euh, defarul mais dafay yàq dafay gën a féewale tant que ñi ngi nekk ci féewale gi rek du ñu mës a am ñu bëgg te c' est l' pour le président Bassirou Diomaye Faye et man pour man sax challenge la war a doon ci moom man pour man parmi ces défis internationaux yi nga xam ne moom la Sénégal war a relever mooy jéem a liggéey à que ñi nga xam ne ñoom ñoo génnoon mën a dellu siwaat ci li nga xam ne ni mooy CEDEAO mais kon su e su boobaa delloo si boo xamante ne nii ku ci nekk dina ci mën a gis kontam te loolu yaakaar naa mooy euh, liggéey boo xamante ne tey jii effectivement te Sénégal sax daf ko position Sénégal la war a doon xam nga xam nga position Sénégal mm-hmm. et ça ne date pas d'aujourd'hui Sénégal sur le plan diplomatique